làmb ji ni nu koy defee saabu làmb sajee topp gan ñu bokk ci làmb wéer ko ak waxtaanu làmb noonu lañ koy fas yéene wéele waaye bala nuy gën a sori ñoo ngi nuy ñëpp ci biir nuyoo bi ñuy dellu di ci jiital kilifa diine kilifa aada yi di sàkku seen ñaan ci réew mi xam ngeen ni dimanche ni tey làmb ji dafa bëroon li ko waral sunu ndijaay coon balaago sekk gennoon àdduna yal yàlla yërëm ko yal yàlla xare ko àjjana ñu koy jaale réew mi di ko jaale njabootam di ko jaale ay xaritam ak ay soppeem yëpp fa fa kàlla moom it nekkoon na jëmm joo xam ni ci li mu doon liggéey teral na ci doomu aadama yi ndax tabe ba tabe jeex tabe ci sa xam-xam ak sa métier daf ci am solo ndax dina tax ñu bari dina nu root ci sa keppaar jële ci njariñ euh, digganteem ak borom kër gi nag lal sunu xameel lal sunu ànd ñu dem ba séq teraanga yu bari mu jóge ci moom ñëw ci ñun muy sunu ndijaay coon ko sekk yàlla na yàlla dolli ko yërmande mën nu seede ci moom nit ku doylu la woon ndax bari na programme yu mu waroon am war ko tëgg ci wàllu communication am luñ ko ci doxal moo xam wal fajri moo xam ci beneen tele planning de diffusion yi nga xamante ni mooy yor programme am yaa koy téye sax bopp ginnaaw programme ba ci ngeen di toog nga jox ko ko loolu wax dëgg yàlla kilifa gu doy lu moo nuy doxee kon ñu koy seede ci moom mbokk yi di fàttali ni rek jotaayu làmb ji bala nuy gën a sori xam ngeen ni bu ci kanamee tuuti dinañ ci ñëw bombardier ba nga woon ca Pologne amoon fa combat waroon fa bëre yàlla def bërewu ko ndax am tawat gu mu yëgoon ci yaramam jàngat yu bari nag am ci jàngat yu wute moom bombardier yëkkatil na boppam kàddu wax na li mu wax lan la ci kanam dinañ ci ñëw jotaayu làmb jiit ñi ngi fi ak euh, pab Diagne Seras muy ménager di président des ménagers région bu Louga ñoo ngi fi ak mobile 2 bu écurie Grand Yoff mbooloo moom it am na combat ne ci wàccaay dinañ ci waxtaan ak moom Jax mi nga xam ni moo ubbi saison bi tey ci kanamit it dinañ ko seet am waxtaan wu nu séq ak moom mobile 2 ñu ngi lay nuyu. waaw auzu hmm? ñu ngi lay nuyu ah, di nuyu suñu nijaay Pape Diagne Seras mi ñu toogal. ñu di jaale Sénégal suñu papa Thion Ballago Seck ah di jaale Sidi Lamine Niass suñu papa di ñaanal Thion Seck mi nga xamante ne nii. man ñi ma xam sax dañ ma doon woo di ma ko jaale ndax ku ne xam na ne doomam sama xarit la waaye man coon mooy sama woykat samay téléphone boo xoolee lépp ay musique am rek ñoo ciy nekk ah, di ko ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla na ko suñu borom xare àjjana yàlla na rëccu li mu doon ñëwee ci àdduna di ko ñaanal bépp wooye daw la di nuyu waa Sénégal yëpp mm-hmm. hmm? di nuyu sa auditeurs yi seetaan yëpp di ñaan tamit lépp lu ñu fi wax yàlla na doon lu jub te xam ne lu fi jubadi nañu nit ñu comprendre te xam ne ay doomu aadama rek lañ ñu ngi nuyu ñëpp jërëjëf ñoo ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Pape Aline naaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed maa ngi gërëm sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Seydi Mouhamadul Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di nuyu mbokki Sénégal yëpp di jiital ci nuyoo bi la président des managers Bassirou Ba bu sama papa di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér su ma ko nuyoo nuyu naa bureau manager yëpp di la wax nit Pape alin fi ñuy commencé mooy dañuy ñaanal suñu papa coon balaago Seck yàlla suñu borom xare ko àjjana yàlla na récc li mu fi doon def fa mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jugee lii yëpp ay jàngal day war wane rek àdduna fii dëkkuñu fi kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu ñam dund dina ñam dee yàlla na yéex di ñaanal suñu papa Sidi Lamine Niass yàlla xare ko àjjana doomam bii fi nekk di Cheikh Tidiane ñas yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér wax dëgg yàlla moom it jàmbaar la dañ mm-hmm. koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér di la wax ni moom boo dégloo rek ay kàddoom ba tey mm-hmm. day mel ni mi ngi dund parce que toujours yaa ngi dégg mu ni nangeen ngeen fexe ba seen askan ngeen ànd ak askan wi maanaam loolu yéen ci ngeen nekk guddeeg bëccëg Pape Aline loolu ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko dàqal fa mu jëm ci barke yonent bi ñuy bàyyi xel équipe bi ñuy àndal ci làmb ji saa su ne Alaaji Saliou Bey fare ci réalisation bi euh, Serigne Aline Kayta fare régie Ndiasse Mbow fare ci montage bi ba tax na ci biir loolu dañuy des ak euh, Serigne bu ko defee Bombardier moom it ca feebu ne ñu teewlu kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko ci wàllu wér-gu-yaramam ak combat bi nga xam ni waroon na koo bëre dellu si ci mbokk yi Euh, après ma demoon hôpital médecin yi consulté ma ne mënoon def combat bu tey donc ñu annulé combat bi pour prochaine fois euh, am na nag ay rumeur yi daw que dañ ma opéré dañ ma hospitalisé day fekk hospitalisé wu ma maa ngi nii di sant yàlla bu baax dégg naa it naan dañ ko opéré kenn opéré wu ma euh, defal nañ nag ay perfusion yoo xamante ni pour calmer douleur bi la donc médecin bi moo ne ñu mënuñu def combat tey. kon dañ koy reporté ba prochaine fois di wax Sénégal gépp ni ñaan yi egsi na ñu ngi sant yàlla bu baax su nag di gën a leeral ni euh, gars yi wax ni dañ ko opéré dañ ko hospitalisé yi wax dëgg yàlla ñu ngi nii si kër gi toog di waa waajal dellu Sénégal pour reprendre suñu entraînement waaj yi nañ combat yi kon ñëpp ñi am ñu doon ñaanal ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nañ gën a seen xel ñu ngi sant yàlla bu baax ñu jërë ngeen jëf kii ngi noonu ma nga cee kër ga toog na waaja a kon dellu si Sénégal reprendre ay entraînement am ñaan yi yegg si na kon mu demoon bëri ji MMA réewu tugal yóbbaale woon drapo réew mi ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér suñu borom dellu si dellu si ko ndaanaan la boo xam ni wax dëgg yàlla gaynde la ci tàkku tàkkusaan am jom jàmbaar attan bés ba Bombardier di gaynde goo xam ni moom it lu ko bëta may fitam du ko ko xañ kon xam ngeen ni bu jógee wuti li mu bëgg mooy indi ndam réewam jàmm nag ak pexeem yàlla ak dogalam kon champion sa réew yëpp a ngi sa ginnaaw euh, di la ñaanal jàmm mbokk yi kon di fàttali it ni xam ngeen ni saison bi ubbi na tey jii muy kon euh, takkusaan goo xam ne sa production moo ko ubbi tegoon mise u 2 cinq 500 ba fii nuy àddoo ngeen di teewlu euh, Adrien Senghor làmb jàng fa kon ñu koy wéyal ñu dellu di fàttali ni ki nga xamante ni mooy Muñaa production moo war a ubbi dimanche bii di ñëw Gaston Mbengue war a ñëw le 4 avril ginnaaw loolu le Sané war a ñëw kon muy wane ni day loo xam ni promoteurs yi soobu nanu ci liggéey bi ñoom ñëpp yàlla na yàlla kàttanal leen ci ñu am ci ndam bu nuy ñëw ci li nga xamante ni it euh, moo am tey mobile yaa ngi woon ci làmb ja yow it euh, mbër nga di bëre mais tey fële ku fa ñëw gis xale yi ni ñu wuyusee ku mel ni Ibou Ndiaye Diofior Obali euh, Cheikh Tidiane Niang général Malika ku mel ni kon Birane Mbissine booy Faye ni xale yi wuyusee moo lay woon ni mbër yi namoon nanu làmb waaw xam nga day réew mu nekk day am lu fa bokk. Mhm. làmb daa xas a bokk ci réew mi ba pare. Mhm. bu yeboo ñu teel koo jël xam ne ñooy borom. Mhm. teel a xam ne ba fi Sénégal di mujj. ku koy mën a yorok fu mu jëm ci àdduna liy développé Sénégal làmb da ciy bokk. parce que da cee xas a bokk ba pare. tey boo ñëwee gaal gi nga taxaw sa yaram day daw sax. man bu weesoo mbër weesu lépp man amateur laa làmb dafa bokk ci li may dundal. Mhm. man mun naa ñëw làmb ba mu jeex bugguma seetaan làmb yi mun naa bàyyi ba làmb ji fees ma taxaw ci ginnaaw. Mhm. di déglu ambiance ba làmb ji jeex. ba làmb ji jeex dafa bokk ci man. Mhm. te maanaam buñ jëlee làmb mama biñ ko commencé sikki saakaan nii Sénégal. nga xool période boobu li ci Gambie développé ci réewam rek. da ngay xam ne làmb dafa bokk fii. ñun biñ koy sikki sàkka li ci Gambie. développé ci réewam ci làmb. te waa Sénégal ñoo fi doon jógee dem développé ci ñoo ko doon bëre ji mhm. lu ñu fa teg ñoom ñoo koy jëli indi ko mhm. mais xoolal ni Gambie doon mel ci làmb daa mel ne Gambie la Balla dëkk daa mel ne Gambie la Modou Lo dëkk ndax événement yi nga doon gis stade amitié lañ doon am mhm. te pourtant bi làmbi Sénégal di dox dëgg la ñi ngi doon am làmb mi ngi doon dox mais est-ce que événement yi nii la daan mel est-ce que seen rumeur nii la daan toll ci Sénégal kon làmb daa ko te xam ne ñun ñoo ko moom ndax lu ñu pratiquer lu ñu jàngi la leneen ñu pratiquer lu ñu la bokkul ci ñun waaye bay ba dugub gi am nit ñi lekk ba regg sëgg ci tool yi bëre. loolu mm-hmm. Sénégal moo ko moom. Mm-hmm. te fa la làmb sooxe ko. nañ ko téye. Mm-hmm. message bu am solo la kon champion bu ci bokk am ci cër yëkkati ko moom it xam ngeen nii am na combat mi ngi ci wàccaay war a bëreeg euh, Bour Sine Pape Diagne Seras yéen it ngeen di ay ménager di nekk ak seen i doom seen i jarbaat di leen tàggat. tey jii boo ñëwee làmb ji ni mu doon xaar la wuy sirndoo ci waaw lu euh, ngi nii di dégg léegi tëgg yi te bi ma ñëwee léegi mobile 2 bi mu waxee champion yi fa nekk yëpp da ngay xam nit ñi la mhm. lii dafa di loo xam li ñu war a def dëgg dëgg dëgg mooy jàppale mbër mhm. parce que liy dugg ci luy dund ci làmb Pape Aline macha allah kenn xamul toll dama koy wax toujours mhm. nee naa leen nañu jàppale làmb ji gëstu gën a jàppale xale yi mhm. parce que xale yi amuñu lu dul làmb Sénégal làmb rek la am comme ni ko mobile 2 waxee maanaam mbër yi amuñu lu dul dugub ñoree ñu dem buñ ci jógee nekk ci mbapat yi mhm. tey xoolal mbapat li ci daan génn ci ay champion Pape Aline mhm. kenn xamul nu mu toll gaal gi day tëgg mbappatu Mbay Sàmb mbappatu Max Mbargaan yaa ngi dégg mbappatu Mbay Géy mbappatu Balla Père Balla Gaye yàlla na ko yàlla yërëm mbappatu Père Aline Sey yàlla na ko yàlla yërëm nga xool xale yi ci daan génn tey jii mais loolu tey moo xaw a manqué tey moo xaw a rafle ci làmb mooy mbapat rafle na ba pare soxla nañu autorités yi gën a jugal seen loxo ci làmb ji mhm. sponsors yi gën a ñëw yi di gën di bëre parce que xale yi tey Pape Aline boo doon xool tey jii muy man muy sama morom ku ci ne li nga yor ci ay licence xamoo noo koy def mais nag kon li ñu war a def mooy jàppale promoteurs yi jàppale lamb Sénégal lamb la am ni ko mobile waxee léegi xale yi bi ñu demee ba gisatu ñu xam ña nga dem Gambie ji bëri ji mm-hmm. te Gambie lamb bëri dóor fii lañ ko jëlee mm-hmm. te buñ moytuwul daañ ko nangu suñu loxo suñu autorités yi bu ñu yolomalee Gambie day nangu lamb ji suñu loxo de mm-hmm. parce que gis nga événement yi ñu fay te ñun defe naa ni làmb lépp lu ñu wër ci làmb defe naa ci Sénégal la fekk baax tey dangay xool làmb ji fi mu toll Pape Aline ñaata espoir ñoo daan génn ci at mu jot ñu naan ñii ñoo génn ren kañ la espoir gën a géej ci làmb Pape Aline kenn su koo gis mm-hmm. nan état bi gën a jàppale làmb wàññi fare yi arène nationale bi moo ef toy ñu wutal ñu directeur ci stade arène nationale bi làmb ji gën a continuer xale yi di bëre mm-hmm. promoteur yi di ci gis seen bopp parce que lii bu dakkul continuer nii mm-hmm. ñu ci bari dañu arrêté làmb te arrêté làmb ji day am day indi ay jàngat bu solo la waaye ñuy fàttali ni xam ngeen ni làmb ji dafa bër diirug at maa ngi koy wax bi mu bëree nag jàngat yi bëri nanu dégg naa sax ku mel ni Sanoxo numéro 2 mi ngi doon wax naan nanu toxal làmb jeeg nanu wut leneen luñ ci teg dégg danu ko waaye jotagul ñu tontu ko bés ba la ñuy xaar ndax nag olof yi dañuy faral di wax ni bari coow bu doon tax am daraja mbaam kenn du ko sëf euh, kon jax bi nga xamante ni it moo ubbi tey du ñu def lu dul ànd ak Serigne Kayta bu ko defee moom it am waxtaan wu ñu tënk ak moom dellu si ci mbokk yi seen émission làmb ji ni ñu koy defee saa su ne topp gan ñu bokk ci làmb xam ngeen ni it euh, émission bi dañu ko jël jagleel ko sunu mbokk yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu simple ñoom it ñu leen di delloo njukkal di leen jox seen cër ak wàcc wàccuwaay. wala simple gàcce ngaalaama ñoom ndax it ñi ngi defar lu bari ci làmb waxtaan wi ñu ciy def moo waral ñu topp si koo xamante ni it jàmbaar la ci def na ci ay jéego am na liggéey boo xam ne def na ko ci dinañ waxtaan ak moom ci lutte simple waxtaan ak moom ci lutte avec frappe ak it doxalinu làmb ban gis-gis la ci am muy si Jax si ñoom lay nuyu. maa leen di fay Papa Alioune di leen bëggee yow ak euh, grand bi nga àndal. Saliou Bey Saliou Bey ak Aada. Mm. ak euh, bul bëgg fàllu mm. képp kuy auditeur wala ni ñu koy waxati seetaankatu Walfadjri ci Sénégal ak partout dans le monde ak képp koo xam ne yaa ngi bëgg làmb di ko dunde jërëjëf ñëw jàkk ci làmb mu nekk promoteur nu mu nu mu jaare ban yoon waaw ñëw ñëw moom c'est venu comme ça donc man buggoon naa làmb daan ko seetaani bon et puis à un moment donné ma xalaat ne bu war naa mën a dugg ci làmb ji ma tàggu samay kilifa ñu bàyyi ma rek ma commencé mm-hmm. fi nga commencé ñëw ci làmb mais bi nga gis nañ li nga def ci lu simple jéego yu am solo. Mhm. mise yi am foo ko fekk am foo ko yóbbu. waaw yéene boobu. waaw man bi ma ñëwee beneen affaire laa bëggoon andi ci lutte simple. donc euh, lutte simple mooy sama objectif bi moo tax ma dugg si si làmb donc euh, li ma bëggoon mooy fexe ba la waa mbëru lutte simple yi euh, mën di fayeeku xaalis bu doy ba ñenn ñi duñu du leen jaral ñu demati ci lutte avec frappe mhm. c'était surtout donc euh, lu simple mun a jël beneen beneen élan parce que dama gisoon ne rek dafa am ni fu mu taxawoon rek toog fa quoi donc mais alhamdulilahi rabbi alamin juróomi at yi ci def gis nañ ne vraiment jéego yi am na solo ba ñëpp a ngi topp daal mu ngi dem mu ngi dem bu baax waaw macha allah mise yi waaw mise yi moom moom moom c'est ça amul discuter mm-hmm. donc waaw ñëpp xam nañ dix millions ñëpp xam nañ jax donc euh, bërka dem boo njaay rek euh, abu abu ndour que je salue au passage moom nga xam ne ilaa euh, ni ñu koy waxeeti euh, euh, Abou nduur ilaa moom mooy monsieur mémoire lutte simple dara du ko rëcc daal voilà donc fan yi passé rek génne na benn article naa man dugal nga quatre-vingt-quatre million ci cinq yi nga fi nekk mhm. man sax xaw ma woon ñaata laa dugal donc mhm. muy lu important parce que moom dafay topp affaire bi fu nekk ci région yeeg fépp waaw mhm. ah, donc loolu liggéey boobu Euh, mooy toujours rek sama sama perspective bi ma doon wax démarrer euh, liggéey investir euh, te la lutte simple me le rend bien quoi mm-hmm. waaw départ bi met yoon na mais léegi amatul problème wax fa dëgg yàlla. am na solo Abou Ndour muy sunu naataango. Abou Ndour waaw waaw waaw. loolu liggéey bu am solo mu ne 5 ans yi kon bilan bi bu ñu koy tënk Jax def na ci 84 millions. 85 waaw 84 ah, millions 85 millions à peu près. muy liggéey boo xamante ni yokkute làmb la. waaw yàlla na ko Jax gën a mën. amiin nga ni ma ndorteel yi metti woon na. waaw boobu Jax tëgg perte wala Jax tëgg gagné exemple. lan la ci Jax doon def comme gis-gis. waaw tëgg perte la da ngay tëgg doo gis ket xamuñu la donc lutte beneen euh, làmb beneen réalité la. exemple mës nga teg mise boo xam ne boo nu ko doon dévoilé tey ban somme la nga perte ci naka. 5 millions. nga teg première journée millions avec les frais mu nekk ay 7 8 millions nga jaay sa guichet amoo sax 3 millions. waaw muy perte une 5 millions sèche. nga nga am ci ban gëm-gëm ba tax nga dellusiwaat. waaw non du man man américain la man lijjantiwuma loolu <laughs> man li ma gëm dama koy gëm rek damay dem rek. man noonu laay fonctionner donc euh, je dis que lii départ la métti Euh, am benn kilifa bu ma waxtaanal mu ne ma kooku nag moom ma gën a jox courage ci làmb dama waxtaan ak moom mu déglu ma ba pare mun ne ma ma wax la dara mu ne ma waaw mu a ma da ngay defar sa tur. ngay la wax. Mhm. mu ne ma làmb mu ne waaw mu ne affaire tur la boo defaree sa tur ba sa tur baax ba ñu xam ba ñu xam sa tur foo wootee ñëpp daw. Mhm. da bees xamaguñ la. Mhm. lii la ma wax. jàngat bu am solo. mooy jàngat bu am solo. waaw sa ah. biir wax it yaa ngi ma koy wax. waaw ah. ñi ngay soog a door. Ah. parce que xamuñu la. Mhm. moo waroon nga tëgg per. waaw tey jii xamuñu la waaye nga ñëw am yéene. waaw ñëw am bëgg-bëgg boo xam ni. bu buñ la jàppalee fas nga ko yéene def foofu ko nit waa lutte simple ndax du ñu gën bàyyi xel. li euh, nga xamante ni mooy ni ñuy séddalee cër yi ci biir. yenn saa yi jagsi dina tëgg fii am keneen ku tëgg fële. Mhm. ñii nu gën a xam wala fa nu yaakaar mise ba ëppee fa la ñuy dem. loolu ñu war ci jàng la waaw non affaire làmb la làmb lutte simple noonu la toogee am na benn année à peu près ay quatre ans ou trois ans ñu defoon ay assises fële stade de l'amitié man sama bopp maa posé woon question bi tonton Alioune Sarr ne ko est-ce que mënuñu euh, ñu choisir ay journée yoo xam ne day journée ay journée tampon yoo xam ne jour boobu day bu ñu waree def mise bu mag kenn du tëgg làmb bu ñu waree def mise bu mag. mag kenn du tëgg làmb pour mu nekk une attraction. mu ne ma non loolu jax kenn mënu ko def ndax euh, làmb simple dañ ko def pour développer làmb donc euh, dafa mel ni kuy jaay gerte rek ki mën a teg fee kaasam plaatam di jaay kaas juróom ki teg fii plaatam di jaay kaas fukki dërëm mm-hmm. mais munuñu ne ki am fukki dërëm borom doole bi rek ay tëgg déedéet donc ñoom noonu lañ ko gisee daal ci seen politique mm-hmm. donc tamit ñu jàppe ko noonu mm-hmm. de ce fait léegi euh, situation de confrontation day am toujours mais nag pour man loolu c'est pas trop ndax euh, public lutte simple par rapport ak aire yi nga xam ne surface yi nga xam ne fa la ñuy tëggee làmb mhm. euh, ñaari làmb yàqu ko mënu ko yàq parce que Adrien Senghor moo fi nekk moo doon base làmb bi te Adrien Senghor ñëpp xam nañ dafa bloqué c'est limité mënoo mhm. fa def plus de 2000 personnes mënoo mhm. fa def ba ñu wàññoon lutteurs yi ne 64 lutteurs la yem muy benn catégorie mënoo fa am ñaari catégorie une sax demandé woon naa pour ma wàññi 64 yi def ko 32 léger 32 lourd ñu bañ donc il toujours des difficulté mais yooyu euh, discuter da ngay discuter toujours ak CNG di poser ay proposer ay yëf ñuy xool lii du am lii dina am mais par exemple man système bi ma ko jëlee yow par exemple mun nga tëgg euh, gaal gi man mën naa tëgg gaal gi parce que man ay mise yu mag laay def yow nga tëgg Adrien Senghor mun loo passé un million donc benn catégorie ngay am man gaal gi du ma fa tëgg cinq cent mille en général parce que man ce qui m'intéresse mooy ñaari catégorie bëgguma tëgg làmb bu am benn catégorie mhm. il faut mu am léger ak lourd donc loolu nit kiy tëgg gaal gi nit yi mën nañ fa dem seetaan ba mu tas ñu ñëw feccali siwaat fii ndax balaa muy moom 64 la am man am naa 64 léger balaa sama 64 léger di jeex moom mu pare moom mu pare gars yi ñooy dab si lourd yi fii noonu la demee voilà jàngat bu solo la. Mhm. par rapport ak it làmb en ni muy doxee. coronavirus ñëw na fi. waaw muy loo xam ni dafa wër àdduna. waaw lépp la gàllankoor. Mhm. Euh, loo ci jàng ci nekkinu promoteur yi ak nekkinu mbër jafe-jafe jafe-jafe kese promoteurs yi ñaari tibu promoteur ñoo fi nekk promoteur bi nga xam ne dafa am liggéeyu boppam ba pare def promotion en même temps ak promoteur bi nga xam ne promotion làmb mooy liggéeyam il a de loolu mooy liggéeyam ni mbër choisir man laa. xam nga am na ay mbër yoo xam ni menuisier lañ ñi leneen ñi leneen ñi leneen en même temps mbër mais am na ñoo xam ne mbër kese lañ. jërëjëf kon euh, jax moom moo ubbi saison bi tey dégg ngeen it kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ñëw na ci promoteur yi ñëw na ci mbër yi ñëw na it ci mbas mi defal na nu daal jàngat bu yaatu ci li simple nga xam ni moom la kon euh, ubbi tey euh, mobile de ci yow laay ñëw fi mu daanee la ci ay kàddoom dégg ko am na mbër yu am métier am na mbër yoo xam ni mbër kese lañu ci biir mbas mi kon mbër yi war cee jàng fexe am luñ ko booleel. waaw maanaam dañ naan am na mbër yoo xam ne am na leneen lu ñu mokkal ci seen bopp lu bokkul ak làmb. Mhm. mais làmb sax métier la damay dégg nit ñi di wax lu métier. làmb métier la. métier la. Mhm. ndax foo xamante ne nii loo ciy def da ngay toog waxaale. Mhm. ñu ne la temps laa am nga ne temps laa am loolu ko mun métier rek koy def. ndax kaay toog di ma xool ma lay fay gisoo ko fenn. yeewu ataay ba ngoon nga dem tëdd ñu di ci waxaale prix amul. kon loo xamante ne da ciy waxal rek nit. mu am contrat am décharge am lépp métier la. Mm. c'est-à-dire nag Sénégal am na mécanicien yoo xam ne mo mécanicien lañ qualifié nañ si chauffeur lañu am même temps. Mm-hmm. en même temps garde rapproche lañ. Mm-hmm. lu nekk ak sunu borom ni mu koy mooñaale doomu aadama am na ñoo xamante nag yàlla nat na leen làmb rek lañ suivre. Mm-hmm. di ko def. Ah, mais li ci ragal mooy nanguwul ñëpp. moom boo bu fekkee jël nga ko def jël làmb rek def ko métier. di ci yëngatu. nga dem ba toll foo xam ni métier raw na la. te li nga njortoon ci làmb ama ko ci. waaw mooy li la wax rek loolu day am maanaam mun ngaa jël làmb booleeg sa métier. Hmm. dem ba jëmmi jamono li nga njortoon ci làmb jotoo ko nga suivre métier bi mu demee it noonu. Hmm. la fa njortoon doo ko gis. doo ko gis réussite doomu aadama moom mu ngi ci loxoy suñu borom lenn rek moo ci am solo. Hmm. mooy njiit yi nekk ci réew mi. nañu jël làmb delloo ko cër ji mu am. te xam ne ñoom ñëpp poste ya ñu toog tey bañ koy wuti. ci ay nitu làmb lañ doon daw seen ginnaaw. ngir jot ci loolu am parce que il faut gis nga mbëri làmb yi fii ak ku ci nekk demoo toog sa biir kër nga seetaan sa événement bi nga bëri amitié ni nga def amitié. Mhm. nga xam ne député mënu ko ministre mënu ko. Mhm. ministre bu mu neex wool say nit jubal stade amitié mënoo jël benn tribune bi. te mbër yi dañ koy gise ferme. Mhm. ba pare bëgg a seen bopp ci kanamu ñooñu. da ngay imaginer tey lu toll ni ministre mu woote France 24 wax li mu wax. yëpp teg seen nopp. mu doon lu international. Mhm. ñu ne Sénégal te ñun ñoo toog di ko discuter naan nguur gi bëgguñu làmb ñi naan nguur gi bëgg nañ ko nguur gi dañ koy xeex moom mu génn. bokk ci nguur gi génn wax loolu. dem France 24 wax fa kàddu yu mu jël teg ko ci kaw deru mbër. Mhm. ne Sénégal amul mars mbër yi ñoo génn di sakaase dëkk bi. Mhm. ndax danoo gëj a bëre yoratuñ nii ak nii ak nii. mu international. tey benn mobile 2 mun na xëy dem Amérique. am na ay boo yoo xamante ne nii ñi ngi ci làmb ñaan nañ yàlla ëllëg ñu bëgg tukki ëllëg nga dem ambassade France wala ambassade bu mu mun a doon xam ne France 24 la ko ministre bi waxoon mhm. ministre bi ne ñu ne la lii ak lii ak lii ak nañ leen ko mhm. maanaam kuy sakaasi sa dëkk duñ la bàyyi nga dugg suñu dëkk te même bu ci loolu yëpp mënul am parce que mënuñu sukkandiku ne mbër mun naa dem di bëgg tukki ñu lay koñe ndax loolu mhm. mais est ministre bi daa war a def loolu ba pare toog biroom kaay leen ma kaay leen ma baal ma ak amul mosoo ko gis si àdduna est am na important mu ñëpp seetaan nañ mu recevoir leen. mu recevoir leen bi ñu fa génnee ñu taxaw ci buntu bureau bi def seen vidéo ne ok nañ arrêté. foofu lan ngeen gis ni mbër yooyu nga xam ni ñoo yor seen kàddu moom la ñu waroon def. maanaam moo xaar ko ci kilifa gi. tey maanaam même bu dee ministre bi kilifa la jox nañ ko cër ba mënuñu koo wax yenn wax yi. Mhm. bu leen wooyee toog ñu xamal ko ne ñun ay mag lañ mature nañ. Mhm. am na yoo xam ne mun nañ ko comprendre ci erreur. Mhm. parce que tey man mun naa jàngat ne réew mi foofu mu tolloon ku bokk ci nguur gi boo génnee wax lu ëpp ngay wax. Mhm. parce que réew mi tolloon foofu. xamal ne ñun ay mag lañ. làmb it li ñu si dese. Mhm. yaakaar naa moo ëpp li ñu li ko li liñ ci romb ko ëpp. xamal ne ñun mënatuñ gañe ci làmb luñ gañe woon. tey fu ñu bëgg a fanaani tey ci àdduna bi mun nañoo xëy dagg bee dem fanaani fa mais am na suñu rakk yoo ne ñi ngi ñëw te sa kàddu gii bu ko jàppee kàddu gu ndaw ndax doo n'importe kii nañ mais mënuñoo canaliser huit mille licenciés lenn dañ la doon ñaan connaissance bi nga am ba mën a dugg France 24 wax ko fa est-ce que du gën a simple nga dugg France 24 xamal leen ne da ngaa ci sa communication mais nekkul intention bi nga jëloon. Mhm. mbër yëpp jotee ko comme ni niñ ko jotee woon na yaa wax lii. Mhm. mais mënoo génn wax ñu li ñu wax mu wër àdduna nga recevoir ñeenti nit ne calmer nga ñëpp. Mhm. mi ngi noonu jàngatu làmb la Pape Diagne xalaat bu ni mel loo ci am. waaw xalaat bi ci mel mooy. d'abord di féliciter Jax bu baax a baax nit ku yàlla baaxal la moom ak sëñ Modou Niang damay wax ni ñoom ay référence lañu ci promoteurs yi ak Pape Abdou Fall ak yeneen promoteurs yi fi nekk yëpp. parce que nit bu fekkee day jël ay millions di def ci làmb te bu perte du bàyyi kooku ko jàppale mu dem gis nga Jax mii booy wër nit ku baax jàpp ko booy jàpp gor jàpp damay gis ci làmb ji muy organiser wallahi azim day perte ay millions su ko neexoon bàyyi làmb ndax bu ko neexoon am na liggéeyam mu toog. mais téewul subaa ngoon guddeeg bëccëg mi ngi ci làmb fu mu toll boo ko ne alu téléphone mun la ñaata mbër nga yor andi ko ma dugal leen ñu mel noon nag soo leen amee da nga leen di jàppale encouragé leen ñu gën a jëm ci kanam lii mobile 2 wax léegi njiit soo ko defee jiite réew sooy wax war nga xool li ngay waxaat bu baax a baax a baax parce que ni ma koy waxee toujours mooy dëgg nee naa leen yàllaa ko moom yonent bi nee na ku ku dul wax dëgg bokk sama xeet nañu fexe ba li ñuy wax muy lu rafet gis nga ñu génn ñu ni mbër yi la bi ma ko déggee dafa dama ko ñaawlu parce que man li ma gis ci ay image ñu gis ko xam nañ leen ñu ne ay nervi lañu ñoo ñëpp war na leen man a sepp génne leen fële dama ne problème bi amoon du problème mu mbër problème la boo xam ne sénégalais yi dañu sonn génn wane seen mer damay wax ne sénégal gii ñu nekk nii tey jii amul ku ko mën a yor tey ci nu la neex tey ci réew mi amul parce que population bi dootuñu ko nangooti li fi nekk mooy li nit ñi bëgg nga ànd ci ñoom soo ko defulit fa nga toogit doo tëdd boo tëddee doo nelaw que li am tey ji France ñu seetaan ko déglu ko xam nañ ne li ministre de la justice wax France vingt 24 ñun gisuñu loolu demeewul noonu. mbër génnul keneen génnul yéen image yëpp sénégal yi am nañu ko. mbër yi wallaahi azim kenn gënu leen nekk responsable da ngay gis benn mbër buy dundal lu ëpp téeméeri nit. ma ci teg sama bët Pape Alé nga teg sama sa bët. tey jii ku mel ne Gris Bordeaux. ñu ngi koy nuyu au passage parce que nee nañ ko moo jiite mbër yi. yu mel noonu bu amatee. balaa ngay dem dajale sa njaboot nga waxtaan ak ñoom parce que man doo ma jiiñ ma mbir ba pare di ma woo sa bureau may ñëw dañu waroon dajale dañoo leen waroon dajale waxtaan man soo ma jiiñee mbër accusé ma ni ma yaa def nangam soo ma woo du ma wuy si papalin mhm. yaay toogaat démentir ni li ma waxoon dama juum parce que mbër yi du Sénégal li génn du Sénégal li génn du Ndakaaru rek laa la astafurlaa li génn du Ndakaaru boo xoolee tey marché yi ñi génn Fuuta génn na mhm. Louga génn na Ndar génn na saxaaf gi ma dëkk génn na ñoom rek loo génn ñeneen ak ñeneen génn mhm. partout France Italie Allemagne Suisse wala adduna bi ñëpp a génn parce que tëj bi moo metti woon ci nit ñi lii nii tey bu yàgg lañ ko war def mooy ubbi stade yi ubbi nit ñi ñu dem liggéey yi parce que état mënut a yor ñëpp nañ ñi dañu xëy di daan seen doole Pape Aline di wut lu ñu yóbbu seenu njaboot boo leen leen ràpp tëj doo leen liggéey 5 heures du matin 21 heures ngeen maanaam 9 heures nga tëdd xoola koor daaw li nit ñi daj da ngay gis ñoo xam ne si dëgg leen di yërëm guddi bu jotee duñ am sax bu fi seen soxna nekkul ku leen toggal reer lii bañ ko war a def yàgg nañ ubbi stade yi dimbali sénégalais yi dimbali nit ñi te xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk te ñu bàyyi di raay raayante bi tey wax dëgg jàngat bi na solo voilà muy jàngat bu solo muy kàddu yoo xam ni niñ ci dellusee def ci tour de table bi mu jibee ñu yëkkati ay kon kàddu yu ñaaw teg ko ci kaw mbër yi jiiñ leen yenn ci fitna yi ñëpp a ko ñaawlu muy loo xamante ni mbër bu njëkkaan kilifa mooy ànd ak mbër buur mooy ànd ak mbër borom barke mooy ànd ak mbër fa tubaar fa kàlla loolu li ko may mbër njomam njàmbaaram ak darajaam ak saa yu yegg see ñu xam ni am na ku dugg si mi ngi am ba tey waaye jamonoy dox ba toll foo xam ni fa tubaar fa kàlla nit ñi dañuy jaawale daraja te góor ga da doon wax ni ku sa daraja jaralul dara doo am ci daraja dara làmb nag yenn saa yi liy tax ñu yëkkati yenn kàddu wala yenn gàkk-gàkk yi di ko teg ci mbër ak i mbëram dañu ci ne seen wax dafa mel ni lem seen jëf mel ni tulukuuna dafa tubaar fa kàlla bu nu waxee aay it nga sopp leen kon nanuy fexe ànd ci dëgg rek du sekk yaaykat yal na ko yàlla dolli yërmande moo doon wax moytu leen ànd jayante tàggoo jëwante làmb nag loolu daf ci bari mbooloo dañu lay tabb jiital la yenn saa yi ngay defee noo xamante ni day laajaat jàngat wala taxaw seetlu ba tey ñu defaat euh, tour de table dugg ci